allah kon gis ngeen ko nii ñu ngi fii ci liggéey bi daa mel ni lii picc yi naaw ñooy faral di def lii waaw waaw waaw te lii nag dafay mat a jële waaw waaw waaw waaw waaw macha allah waa kër sëñ Bassirou Fall alxuraan ak waa waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak waa kër nag waa kër maam Jaara yi kuréel ñun murit ci jigéen yi lii moom buñ koy defat naa leen woo ñu ñëw ci kuréel ñun murit ci jigéen yi ay jàmbaar lañ lool nekk fépp ci àdduna bi di tase si ab kuréel di waxtaan ngir gën a jàppalante kon nag lii war nañ koo yëg waaw fii ci Soror làmp Fall bi waaw waaw lii waaw waaw lii dafa yaatu lii dafa yaatu maanaam te ginnaaw at baat lay am tawfeex gii ñu am moo tax ñu bëggoo dikkal waa adduna bi yëpp ñu xam ni Lamp Fall moo nekk nii Soror bi maanaam nag ñu ñu koy ñu koy moom daa mel ni téeméeri mètre di xanaa fi mu toll waaw. waaw waaw manqué na ko waaye waaye téeméer bi nag tuuti ko manqué. 98 98 laa dégg ñu wax xaw ma 92. waaye daal daanaka téeméer. mètre téeméer yu manqué tuuti. waaw la ilaha illallah. macha allah kon ñu ngi koy dëkkal mbokk at mi yëpp yàlla na suñu borom kon ba déwén jàmm incha allah rabbi jërëjëf ñu ngi ciy fasaale mbokki murit yëpp mbokki taalib bi yëpp mbokki waa àdduna a nekk ci àdduna bi ndax comme ni ñu koy waxee rek moo ci nekk picc nga ca kaw kaw waaye xel maa ngi ci suuf boo gis mu ne fu mu mën a nekk ci àdduna bi xel ma ngi tuubaa kon nag Touba ngi nii jumaa jaa ngi nii bërëb bi ñëpp di dégg nag te mosuñu koo gis biir gaa ngi nii muy eh, eh, Soror Lam Fall bi nga xamante ni moo nekk fii ci biir Touba kuy njëkk a dugg kuy njëkk a Touba kuy dugg Touba moom ngay njëkk gis kuy génn Touba it moom ngay mujjee gis kon nag mi ngi nii jaa jëfe Sëriñ Fàllu jaa jëfe Sëriñ Moodu Moustapha jaa jëfe mboolem njaboot Seexu Xaadim yëpp jaa jëfe mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp jaa jëf taalibe yëpp alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin li ngeen seen yëpp mooy suufu jumaa ji ak seen parce que seen saa yor seen bële waaw jumaa jaa ngi si fuñ jaar rek daanaka nii lañ koy def xoos ko ba mu set ñu nekk ca kaw yore ndox mi di bale di pompe di ménage soofee rek ba mu setaat wécc incha allah yàlla na suñu mbir yëpp euh, setee yàlla na suñu mbir yëpp tege barke doom Fall xaj yi barke Mame Cheikh Ibrahima Fall ak liggéey Serigne Touba jaa ngeen jëf jërëjëf jaa ngeen jëf macha allah jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf taalibe kenn du ñoom kenn du ñoom sëñ bi soxlaa rek taalibe yëpp taxaw doon mbir taalibe kenn du ñoom lépp sëñ bi waaw wàcc bi moom mel na ni moo gën a am taw feex ci yéeg bi yéeg bi moom boo amul condition moom te boo nga waajal ko yëpp noonu lay taqee nii gis bi yegste bi fii yëpp noonu lay demee fënd ak taq waaw te lii moom xam nañ ni dafay nekk ni rek waaye yellu ci liggéey ci jumaay Sëriñ Tuubaa ji waaye boobu fekk na maam Serigne Fall moom taxaw na tembe rek ngir maam fu mu taqee rek ñu setal incha allah kon mi ngi nii nii lay gis ngeen fii sax daanaka xëy na pënd bee fi ëppee waaye li nga xam moom la fi picc yi di bàyyi maam xëy na du yegg si fii waaye nag mat naa yeesalaat gis ngeen ko dindi pënd yeeg yëpp rek waaw dindi pënd yeeg yëpp waaw lii nag ñu koy fas yéene liggéeyal Serigne rek di ko maanaam euh, barkeeloo ci ñu xam ne nii la demee ndax kumpa baaxul kumpa te maanaam euh, nit ki bu amee xam-xam ci mbir day tax mu gën koo mun a wagar gën cee xam loo xamante ni maanaam moom la koy gën a jëriñoo ba tax na lii nii ku ko gis. donte yéegoo fi sax di nga xamante ni boo gisee sóoral bi noonu mu ne ñubb noonu jëm kaw macha allah ci biir gi noonu la mel gis ngeen ko nii xubb yi la ñuy jàkkaarloo nii xubb yee nekk nii gis ngeen ko daal da ngay tiim jumaa ji lépp rek yaa ngi nii kër sëñ Saliou ngi ne kër sëñ Fallou ngi nii macha allah ah. kër sëñ Abdoulaye la ñuy ne fee ci siw gis ngeen ko rek waaw ah, ah, waaw macha allah ok gis ngeen ko ne waaw nii rek macha allah macha allah macha allah kër sëñ Mbacke Madina pale baa ngi euh, fii résidence baa ngi yëpp rek boo taxawee ci biir soo da ngay seen fépp rek macha allah waaw kon dëkk baa ngi nii kii nag comme xam naa spécial reportage la ci kuréel ñun Murit TV waaw muy tawfeex gu ñu sëñ bi defal rek ndax voilà yubituuna bi shay'in min ilmihi illaa bihi macha allah xam-xam moom kenn mënu ko am lu mu néew ne lu dul suñu borom la soob rek kon nag ko gis rek amee xam-xam nga ah, xam ni suñu borom la nag ñu ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla suñu borom barkeel daay rek kaamil la ñuy jàkkaarloo ne kër sëñ Murtala ngi ne kër sëñ Saaloo ngi nii gis ngeen xob baa ngi nii jumaa yaa ngi nii jak kon mi ngi nii waaw kër sëñ baara gaa ngi ne kër sëñ baara gaa ngi ne kër sëñ sëñ saaliw julikaay bi gis ngeen kër sëñ bi kër sëñ fall nii macha allah macha allah macha allah waaw wax naan lu lu baax tey waaye nag xam naa ne mënees mënees na ko yemale fii rek sëriñ borom baaxee yeneen xeetu xéewal ci Touba rek ah, xam ni ñuy wax naan xam Touba jot na waaye nag mel ni jot gi sax yàgg naa jot yàgg na jot waaye nag lu jot rek yomb incha allah kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërë ngeen jëf